أبى الله أن أصوم إلى غير شيخنا إمامهما ميزاك أحمد التجاني بقي أنا أبني تنبلي سنو وقت قروب رمضي سبحانه وتعالى ko sant mom yalla ci mbolam xewalam yep ñu defal yi feñ ak yi neub ñu jël di sëlmal ki nga xam ne moom la ñu yàlla tànnal mooy gën di mbindeef te ñu war koo topp ay ndigalam bàyyi ay train ci suñu sang ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu mbokk yi borom wa taala dañuy jàngal ci ay aaya yoo xam ne aaya yu am solo ñu bëri ci ñun dañu dégg ñu noonu les dix commandements chrétiens yi di ko wax juif yi di ko wax ñoo am nañ seen dix commandements mais dix commandements yi ñu mën a jàng nii dix commandement yoo yoo xam ne mu ngi ci alquranul yàlla digal ñu ko ñu war ko jëfee am yoo xam ne dañ koo war a bàyyi mais sénégalais dañu dëgër fit ñu ci ëpp ci ñoom bu leen waxee yàlla nee na balaa seen xol a sedd wala nga ne leen yeneen bi nee na nee na yeneen bi nee nga teg ci waaye ñeneen ñi sax liñ la ciy tegal mooy Albert Camus nena, yalla nena nee na yonent bi nee nga ne ma Albert Camus nena. na wala nga ne ma Aristote nee na wala nga ne ma Descartes nena, na wala nga ne ma Jean-Jacques Rousseau nena, na wala nga ne ma Jean-Paul Sartre nena. na ay philosophe lañ ñu ñëpp duñ nit ay nit lañ yàlla mu leen bind amoon nañ xel doon xalaat ana ñu tey ñoom ñëpp dee nañ sénégalais nag moom bi ci gën a garaaw nga philosophie philosophie ñi nga xam ne nag ñoom suñ ñu ci ëpp ci sénégalais yi bu leen waxee yàlla nee na yonent bi nee li nga ciy tegal mooy sëriñ diw nee na sëriñ diw nee na sëriñ diw moomu noonu ak philosophe ñi ñu yota tudd nii ñëpp ay doomu aadama la doomu aadama ñëpp ay juum te kenn xamul ci ñoom seen ëllëg amul benn sëriñ boo xam ëllëg ba koy assuré kenn soo mu nekk lu leer loo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a xam parce que loolu mooy aqida bu wér gëm alquran xam li yàlla wax gëm yeneen bi xam wax ko jëfe yàlla dafa wax ci suratul an'am dix commandement yoo xam ne benn bu nekk wala groupe bu mu indi da ko dana ko dana ko tënkee lan lii laa leen digal lii mooy conseil yi ma leen di jox ndax lan benn bi ngeen fàttaliku benn bi ngeen ragal yàlla benn bi ngeen xelu kon buñ bëggee ragal yàlla bëgg a fàttaliku li yàlla digle bëgg a nekk ñu baax il faut ñu appliquer li nga xam ne nii moom la ñu jàngal yàlla dafa ne yonent bi wool ñi nga xam ne ci ñoom laa lay yónni ne leen ñëw leen ma jàngal leen xamal leen li nga xam ne nii moom la yàlla araamal ci yéen yàlla araamal ci yéen bi ci njëkk mooy bu leen bokkaaleeg yàlla dara te seen waajur yi na ngeen rafetal jëm ci ñoom mooy deuxième ñetteel bi yëpp danaa ko leeral après bu leen rey seeni doom ngir ragal ñàkk ngir ragal ñàkk man maa leen di wërsëgal di wërsëgal seen doom yooyu beneen bi ci topp mooy bu leen jege lu ñaaw leen jege lu ñaaw moo xam mu feeñ wala mu nëbbu beneen bi mu ne bu leen rey bakkan boo xam ne yàlla dafa araamal ngeen rey ko lu dul ci dëgg loolu mooy ndénkaane yi ma leen dénk ndax ngeen xelu bi ci topp bu leen lekk bu leen jege alalu jirim lu dul loo xam ne lu rafet la dañ ko leeral ba nekk koo xam ne dafa majeur na matal peese ak natt waxuñu blanche bi un kilo deux kilo ñetti litre waxuñ boobu kese de mais dinañ ko leeral moo ne ci maandute kenn ku nekk nag liñ la togg moom attan nga li mu ñu ñëpp attan nañ bu ngeen waxee na ngeen maandu ngeen wax dëgg ba pare maandu même bu fekkee ne sa mbokk la te li nga xam ne mooy contrat bi ak borom ko matal ba ma sëkk loolu mooy li ma leen digal xam ne moom yàlla digle ndax ngeen mooy sama yoon yi nga xam ne mooy yoon wu jub bi ma leen rëddal mooy diiseen bi na ci jaar na ngeen jaar ci yoon boobu bu leen jaar ci ñàll yi bu boobaa da ngeen bàyyi sama yoon bu boobaa alkande la leen di jugal loolu mooy li nga xam ne moom laa leen digal kon lii mooy ji commandement yi nga xam ne ni moom lañ fas yéene waxtaanee te mu nekk ci sooratul anaam borom bi comme ni ma ko waxee ñetti aaya benn bu nekk mu ko tëjee lii moom laa leen jénk lii moom laa laa leen di waaree lii moom laa leen di digal ndax ngeen ndax ngeen ragal yàlla ndax ngeen fàttali ndax ngeen nekk ñoo xam ne dañuy dañuy xalaat kon premier digle bi nga xam ne nii moom la borom bi subhaanahu wa mooy ñu ñàkk ak dara kon yàlla aaye nañu ñuy bokkaale kon su ma ne la yàlla nee na yonent bi nee na nga ne ma sëriñ diw nee na kon amatu fa place yàlla la ñu bu fa amati place xaalallahu quran la ñu wax wax bi amul sëriñ bu fa amati place lenn ngay wax fii leeral li nga xam ne moom la sëriñ diw wax pour leeral aaya bi wala li mu wax pour leeral hadith bi mais indi lu contre hadith bi wala lu contre aaya bi yaa ngi bokkaale dañ ci def attention bu baax a baax a baax te borom bi subhanahu wa taala nee na yàlla dana jéggale bàkkaar yëpp ba mu des bokkaale bokkaale moom yàlla du ko jéggale mu waxaat ci beneen aaya mu ne ki nga xam ne dafay bokkaale dafa mel ne koo xam ne dafa rotee ca asamaan ca kaw a kaw a kaw mu ne bu ko picc yi toqatiwul par toqati yaramam bi yëpp toqati yaramam bi ba mu jeex tàkk cof ko cof ko ba yaram bi jeex bu ko picc yi deful noonu ngelaw li moo ko fay fekk sànni ko foo xam ne kenn amul xam na makaanin saxiix kon bokkaalekat noonu lay mel borom bi subhaanahu wa taala newaat képp koo xam ne da ngay bokkaale yàlla araamal na ci yow aljanna sa fay moom mooy safara kon bokkaale lu danger te lu sew la dañ ci def attention premier yàlla premier digal bi ñu yàlla digal mu ngi non deuxième yàlla ne wa bil walidayni ihsanan nañu rafetal jëme suñu ñaari wayjur kon mu war ci ñun képp ko xamne fek nga fi say waajur da rafetal jëm ci ñom parce que borom wax na ko ci ay ay yi dul jeex wa wasayna al insana bi walidayhi ihsana ñu ñu dénk doomu adam pour muy rafetal jëm ci ñaari wayjuram mu waxaat feneen ne yàlla moo dogal ngeen war koo jaamu moom dong wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu ne lan la ci teg wa bil waalidayni ihsaana kon waajur moo ëpp daraja sëriñ sax dañu respecté suñu waajur yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ne benn waay bu ñëwoon doon ko tàggu ànd ak moom jihaad hadis bi ibnu omar moo ko solo mu ne ko est ñaari waajur ñu ngi dund mu ne ko waaw samay ñaari waajur ñu ngi dund mu ne ko fa fiihimaa fa jaahid kon boo fekkee da ngaa bëgg a jihaad demal nga jihaad ci ñoom ñaar yeneen ci waxaat beneen xadis ne raxima an ñetti yoon la ko wax perte na perte na perte na saaba yëpp tiit ne ko kan moo perte yow yeneen bi sallallahu alayhi wa mu ne koo xam ne fekk na ñaari waajuram màgget wala mu fekk fi kenn mu màgget te munul dugg ci ñoom ñaar aljanna yeneen bi sallallahu alayhi waxaat ne ngërëmu yàlla mu ngi ci ngërëmu ñaari waajur merek yàlla sànjeg yàlla mu ci sànjeg ñaari waajur deuxième commandement deuxième conseil deuxième digul yàlla buñ bokalé yàlla rafetal jëm ci suñu ñaari waajur ñetteel bi borom subhanahu wa taala wax ne wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyaakum bu len ray seeni dom ndax ñak benen aya bu ne bu len ray seen dom ndax ragal ñak ñun ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi ak yéen yaay yi ñun ñoo leen ñoo leen di wërsëgal ñoom doom yi nga xam ni ñun ñoo leen may doom yooyu noonu ñu jur kon yàlla dénk nañu ñu bañ a rey suñuy ay doom lii nag planning familial boo xam ne planning familial organisé di ci dugg waxuma planning familial boo xam ne borom kër geeg soxna ceeg jëkkër yi ñoo ci dëppoo waaye planning familial bépp boo xam ne gouvernement da kaa organisé dafa xaram parce que liñ ci jublu xam nañ loolu yëpp néewal ñu doole ñun africains yi la bëgg européens yi li ñu ëpp parce bu ñu ëppee développement bi dana changé mais yooyu ñoom ñooy créé yooyu yëpp jàpp ne ñoom bu ñu xool doomu aadama duñ moom ñaari loxo yooyu liggéey mais gémmiñ bi rek dañuy gis ci moom loolu moom mooy li jox nañu beneen conseil conseil ñi nga xam ne ñoom ñooy topp nag di def loolu moom mooy nga xam ne ñoom ñooy topp seytaane jàpp nañ ne arab yi sax mu njëkk ba ñoom loolu lañ doon def dañ doon suuf seen doom jigéen yi jàpp ne ñoom ay ay ay ay awrawe wala yu góor yi nga ragal ñàkk mu ngi dox ci àdduna bi kon boobu moom it nañ ko moytu mooy troisième digal ñeenteel bi borom bi subhanahu wa taala ne ñu bu leen jege lu bon bu leen jege lu ñaaw moo xam di ko waxee wala di ko jëfee yàlla nag lu garaaw la ci teg mu ne ma zahara minha wa ma batan moo xam bu feeñ la wala booy nëbbatu sax di ko def lu ñaaw bul nëbbatu di ko def bu ko feeñal commandement la yàlla moo la ko digal ne bàyyi ko fekkee jullit nga nag mun nga appliquer di yàlla def yàlla wax boo appliqué loolu yàlla yàlla wax nag loolu moom sa affaire mais jullit moom day appliqué li nga xam ne ni moom la yàlla digle Ibnu Mas'ud ne amul kenn ku gën a fiir borom bi subhaanahu wa taala moom mi dem ba ne la booy def lu bon bu ko bul def lu bon moo xam nga nëbb ko wala nga nga feeñal ko kon nañ koy moytandiku bu baax a baax ko koy mooy quatrième bi cinquième bi borom bi subhaanahu wa ne ñu bu leen rey bakkan boo xam ne yàlla dafa araamal ñu ray ko lu dul ci dëgg kon tere nañ ñu rey bakkan boo xam ne yàlla dafa araamal ñu ray ko lu dul ci dëgg lan moo tax c'est logique parce que am na beneen aaya boo xam ne borom bi subhanahu wa taala mu ñëw nan ولقد كرمنا barri wal bahri wa razaqnahum min ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا tafdila ñun ñoo teral doomu aadama jox jëri jéeri ji jox ko géej gi wërsëgal ko ci yu teey yi ba pare gënal ko ci lu bari loo xam ne ñun ñoo ko ñun ñoo ko bind kon doomu aadama moo gën ci lépp moo tax commandement boobu aussi tam lu ñu war a respecté la borom bi waxaat ci beneen aaya ci ci waa banu israil ne leen min ajli zalika katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan bi gayri nafs aw fasadin fi l ard fa ka annama qatala annaasa jamia wa man ahyaha fa ka annama ahya annaasa jamia mais looloo tax ñu bindoon ci waa banu israil dogal ci ñoom ne leen kenn ku rey benn doomu aadama rek dafay mel ne rey nga adduna bi yëpp urakal kenn aussi itam dekkal nga aduna bi aduna bi yépp wala nga créé loo xam ne lu bon la ci ci société bu créé lu bon la ci société aussi dafa mel ne ku rey ku rey bakkan yooyu yëpp niñ koy muytu kon bakkan kenn waru koo rey jaaduwul képp ku rey bakkan borom bi subhanahu wa taala nee wa man yaqtul muminan mutaamidan fa jazauhu jahannam xaalidan fiha wa qadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada lahu azima ku rey bakkanu jullit te yow yaa ko tey da nga xam ne yàlla préparé na jahannam toujours nag li may wax mooy euh, sénégalais yi yëpp ci ñoom boo leen waxee aaya alxuraan dañ koy jàppee comme philosophe benn waay yuy wax ñu jàppee ne yàlla mooy wax benn waay boo xam ne xelam de rafet ñu ñëw di wax loolu lañ koy jàppee te lii ay commandement la yoo xam ne yàlla moo ko bindee ku rey te tey ko yàlla préparé la jahannama joo xam ne safara soo xam ne da nga koy béel béel nga fay def yàlla mere la ba pare rëbb la préparé la mbugal mu tara tara tara tar Buxaari solo benn xadis boo xam ne Ibnu Omar aussi moo ko moo ko mu ne jullit bi du dëñ ci yaatuwaay ak bànneex ak neexaay feek tuurut deret joo xam ne deret ju xaraam kon juróomi commandement yu ngi noonu ñu jàpp juróomi commandement yooyu bu baax a baax ñu a ci deuxième xutba bi ñëw ci yeneen juróomi commandement yi des ñu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi gannaaw bañ santaatee borom bi subhaanahu wa taala julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam جروم تدناكو أسيني واتود داد ينين جروم ميوخ برم سبحانه وتعالى ودقل نكو يوركو جفي ورباي يمي تري جروم بين يلبي ماي برم سبحانه وتعالى دفو وحني ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده جروم بين يلبي ودقل أي جريم لين أم ألال بايكو في يدينك لجريم يولي yow yàlla jox la alal ju dul jeex loolu nekkee seen alal am na ci réew mi mais yàlla nee na nag bu fekkee ne yow ku ñàkk nga te ñu dénk la juróom juróom juróom yooyu noonu na nga lekk ci njekk mooy na nga leen investiral alal jooju jël loo xam ne mënoo ko jël mais bil maaruf am na ñoo xam ne ñoom seen bopp ñoo koy tey lekk alal juróom ji ba mu jeex miraas ba sax duñ ko def lu danger yi noonu te képp kuy lekk alalu jirim yaa ngi lekk sa biir bi safara te boo dee da nga ko fay amul kenn koo xam ne da nga jël àq jàmbur fii te borom baalu ko nga dem àllaaxira te doo ko fay inna alladina yaquluna amwala alyatama zulman innama yaquluna fi butunihim naaran wa sayaslawna saira ñi lekk alalu jirim ndax tooñ ñu ngi lekk safara ñu ngi dugal seen biir yi safara te dañ leen boole yooyu yëpp tàbbal leen safara zahab yi mu ne comme li ma wax léegi képp koo xam ne da ngaa ñàkk di dénk la jëriñ mën ngaa lekk ci njekk investiral ko di lekk ci njekk mu mel ne tay goo xam ne da nga ko ci tayeeko xam ne nag da ngaa oomal kooku moom waroo laal alalu jëriñ parce que alkande la lay la lay jural kon kooku mooy juróom benneelu commandement bi juróom ñaareel bi borom bi subhaanahu wa taala di wax ne wa awful kayla wal mizaana bil qist na ngeen matal natt ak peese ci justice bu ñu ko waxee nag waxuñ la litre bi ñu bi ñu nattee kese ci la bokk waxuñ la kilo bi ñu peesee kese ci la bokk parce que waylu lil mutaffina alladina ida ktaalu ala nnaasi yastawfu yooyu yëpp ci la bokk d'accord mais sa làmmiñ bi balance la na nga fexe ba bu ci wax loo xam ne buñ la nattalee ëllëg da nga ko réccu sa bët yi balance la sa xalaat yi sax balance kon dañuy sàmmwante ak moom suñu wax suñuy jëf bul atte nit ñi parce que yow moo nit ñi ba leen di am na ñoo xam ne foo leen fekk ñu ngi atte nit ñi jiw nangam jiw nangam yow lu soyoon yow mun naa am yaa ko gën a bon say mbir moom moo feeñul kon nañ bàyyi di nit ñi suñu làmmiñ ñi moo ëpp li nga xam ne moom moo ñuy dugal safara te yeneen bi teewoon na làmmiñam ne lii moo ëpp li ñuy li ñuy dugal safara te làmmiñ boobu la ñuy doomu aadama yi dañ koy dañ koy moytu borom bi ne yéen nit ñi na jaamu yàlla li nga xam ne amul kenn kuy moom amul benn buur bu dul moom te bu leen wàññi nattukaay ak peesekaay Sohaybu moo ko waxoon nit ñi mu ne gis naa leen yéen a lu baax de fekk yéen a gi def loolu noonu mooy di natt muy mat di peese muy mat moo xam ci mboolem nattukaay nag ah ragal lan laa leen di ragalal mbugal mu tar moo xam ne dana leen kaw bu fekkee ne dëppoowu leen li defu leen li nga xam ne ni moom mi a def yàlla dégg mooy wa ida qultum faadilu bu ngeen waxee na ngeen bu ngeen attee na ngeen maandu donte ki ngeen di waxal wala ngeen koy atteel seen jege ñaale la donte waajur la donte ko bokkal ndey baay la boo waxee na nga wax dëgg na nga ko wax ci maandute ndaxte loolu moom moo war doomu aadama bi dafa war a maandu ay waxam dafa war a maandu ay jëfam même ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a jege lan lañu war a nekk shuhadaa lillah ya ayyuha alladina amanu تكونوا قوامين بالقسط شهداء لله لو أكتم نكتم شهداء لله شهداء لجيوبهم أنفسهم شهداء لنفسهم شهداء لبري بري بري شهداء للشيطان من نكتم شهداء لله nek ñoo xamne dañu wara nek sédé ngir yalla kessé tax né duñ nek sédé pour séni fos sédé ngir luñu leen jox sédé ngir daraja sédé ngir su ma ko waxul dañ ma mere déedéet da nga war a nekk shuhada lillah ngir yàlla donga donga tax même bu fekkee na yow la même bu fekkee na sa bopp la même bu fekkee ne say ñaari waajur la même bu fekkee na say jege ñaare la tabar ne yàlla lan la namm bu fekkee ne ci li mu wax ne bu ngeen waxee na ngeen maandu li ci namb mooy bu ngeen attee ci diggante nit ñi nga xam ne dañu la ngeen atte leen ngeen atte ci dëgg na ngeen wax dëgg na ngeen nekk ñoo xam ne dëgg ngeen di atte bu leen tooñ boo tooñee rek yow yaa koy yenn yonent bi sallallahu alayhi wa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo maandu ca yàlla dañoo nekk ci ay minbar yoo xam ne minbar yu leer a leer la ci yàlla yàlla yoo ko yëpp ay ndeyjoor la noonu la ko bi waxee ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy maandu ci seen atte dañuy maandu ci seen i jëf dañuy maandu ci seeni i ci wax kon kooku mooy juróom ñetteel bi juróom ñeenteelu dénkaana borom bi subhanahu wa mooy wa bi ahdillahi awfu كولر يعني خم نمام لين أمك برام بسم الله من نين كم مثال فقط لا نين كم من أبي الله بمنو خير الله من ربكم من يب من يبلا من يب من يب من يجام ولا كون فقط لا كون سي يين يخم نمام لين جو فقط لا نين كم سني أبي الله نين وار مم يو أبلي كيكو كون وأوفو بعهد الله نين مثال وبعهد الله أوفو كولر جن دين كان أبي الله nañ ko matal bam ma sëkk te loolu bu ñu ko waxee mooy def ni yàlla digle ak yeneen ci من mooy من lépp من xam ne mom la tere imam tabari muné o bi ahdillahi awfu da ngeen matal la ji ngeen am ak yàlla denkané googu moy lan moy lépp lu yàlla digle ci lu bax dañ ko jema def lépp lu mu tere nañ ko bàyyi bam jeex tak moy nañ def lim ñu digal bàyyi lim ñu tere moy nañ def denkané alquran ak denkané sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy matal kóllëre ba pare yàlla tek ci nag zalikum wasaqum bihi laallakum tadhakkarun lool la len dénk li mom la len dénk lan moo tax ma dénk leen ko ndax ngeen di fàttaliku kon nañu dem ci alxuraan ji ndax ñu fàttaliku dénkaane borom bi subhaanahu wa taala képp koo xam ne nag defoon dénkaane yooyu ni doo mun a waaru dixième bi nga xam ne moom la yàlla jeexalee mooy li ma leen wax nii yëpp li ma leen jot a wax nii juróom-ñeent juróom-ñeenti dénkaane yi mooy sama yoon wu jub bi wa anna hada siraati mustaqima mooy sama yoon wu jub bi ku ci jaar da nga jaar ci yoon wu jub ku ko bàyyi fële nag jaaroo ci yoon wu jub bi mu ne anna hada siraati mustaqima fattabi'uhu fi'lu amr topp leen ko kon boo toppul li nga xam ne nii moom laa jot a wax léegi toppoo siraatal mustaqim te yàlla def na na nga topp yoon wu bi te yoon wu jub bi mooy lan juróom-ñeent yi ma jot a wax ak fukkeel bi nga xam ne moom may dañ topp yoon wu jub bi bu leen bu leen topp yeneen ñàll yi bu leen topp yeneen yoon yi bu boobaa da ngeen réer bàyyi yoonu borom bi subhaanahu wa taala kon digal nañu fukki mbir yoo xam ne war nañ koo jëfee war nañ koo waxee borom bi subhanahu wa taala tere nañu bokkal li ñu war moy bayyi bokkal tere nañu ñu rey suñuy doom ndax ñàkk li ñu war moy bayyi tere nañu lu ñaaw mo xam mu feeñ wala mu neub li ñu war moy bako tere nañu rey bakkan rey bakkan li ñu war moy bako tere nañu rey bakkan nag comme ni mu ko waxe sànq bokku ci participer ci sax wax ci sax ci la bok di jël lamb bi rek wala jël fetal bi rek dem door boo ci waxe sax ci nga bok tere nañu lekk alalu jirim ba pare digal ñu nañu mandu ci ñu wax ak ñu jëf digal ñu nañu rafetal jëm ci ñu waajur digal ñu nañu matal pété blanche mo xam ci wax laak ci nattukaay ak ci lepp digal ñu nañu matal ko kóllëre suñu diggante ak borom subhanahu wa taala digal ñu nak ñeent juroom ñeent yi yëpp buñ ko appliquer mu digal ñu nañ aw ci yoon yi nga xamne moy mooy yoon wu jub te yoon wu jub boobu mooy lan moy appliquer juroom ñeent yi ni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 أبى الله أن أصوم إلى غير شيخنا إمامهما ميزاك أحمد التجاني